يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل الرسالة ومؤدي الأمانة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بن mbokki julli yi نيو tamit ñu dellusiwaat ci xaaju ñaareel bi xaju ñaar bi nak ñi ngi jëme ci fofu ñu daanu sun kaddu ci laylatul qadri xayru min alfi shahri kon ngeenelu bis bobu nga xamne mom la suñu borom yoonte bi xamne suñu borom defal na leen ko ci wéru koor tam gën jinni wér muy tolo juroom juróom ñett fukk ak ñett ak ju tégal laylatul xadr nak <coughs> mi ngi bokku ci guddigi gëna mag ci wèr yu yépp suñu borom jaglél ko xéetu yonte bi sallallahu alayhi wasallam muy gudd go xamné gu barkel la di gudd go xamné nak ku ko xam dang ko fonk way dang ci farlu ndax la ca nek mënoo ko am ci weneen wèr ndax bi annaha afdalu layaali addunia mooy guddi nga xam ne moo gën ci guddik addun adduna yëpp maanaam mbooleem guddi yëpp laytu xadar moo ci gën ndax ci weeru koor lay ame waaye ci biir guddi googu nag ci la alxuraan wàcc loo tax mu gën a tedd ci mbooleem guddi yëpp bi nuzul alxuraan fiiha wa jaxala xayran min alfi shahrin loolu tax kon suñ borom def nag muy aw yiw woo xam ne moo gën junniy weer kon laylu xadar lu màgg la mi ngi ñëw ci weeru koor waaye ci biiru laytu xadar boobu ci la nag ci alxuraan wàccee kon loolu tax mu màgg loolu tax suñ borom def ci yiw yi nga xam ne ci la ko defee ba tax na kon laytu boobu laytu xadar boobu bu ñëwee nit ki war na cee farlu bu baax ba bum ko rëcc ci aw yiw ndax guddi la goo xam ne kat gu ñu jaamu yàlla la ndax li nga ci mën a mënoo ko amee ci beneen kon nag bu ñëwee na nga bari da ci jàng alquranu karim ndax la ci nekk ci aw yiw mënoo ko am feneen alquran waxtu yëpp la baax waaye nag bis yi da ca rawati kon muy jàng ci alxuraan loolu lañ koy dundale ba ca tege mooy nga cay julli julli yoo xam ne donc ngir jëm yàlla ji di ci sàkku yiwu guddi gi loola moo lañ bëgg nga di ko def waaye guddi la goo xam ne dañu bëgg nga cay ñaan ndax guddi gu ñu nangu ñaan la ñu ko delloo kon nag loo ca ñaan rek ñu nangu kon nag ngay farlu ci ñaan ca waaye guddi googu nga farlu ci baax ndax malaaka yi dañuy wàcc ci ndigal suñ borom subhanahu wa taala indaale rahma ak yiw ak barke laytu xadir tatanazzalu fiha al malaikatu bi amri min allah xaamilayni rahmati wa xayri wa baraka yi dañ koy andalé aw yu ab barké dañ koy waccalé ba tax na suñ borom dana ci jéggal ñi nga xam ne ñoo daan taxaw ci guddi googu di jaamu yalla seeni bakkar waye guddi la go xamné suñ borom ci lay dogal mbir yi ci lay dogal mbir bo demee ci sootu duhan ma nga naan eh, guddi googu ci la suñ borom bi dogal mbooleem mbiri xamim wal kitaabul mubiin inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraxu kullu amrin xakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim kon bis la boo xam ne guddi la boo xam ne suñ borom xew-xew ak dogal yi foofii la koy dogale kon nag dana ki muy takko ak ñaan waye muy takko jéggulu waye takko jaamu yalla ndax loolu nga ne am ci doko fekk ci geneen guddii doko fekk ci weneen weer kon dal laylatul mubarak la guddii gu barkeel la guddii gu barkeel la bu ko suñu borom waxee loolu barke ba xel mënu ko xalaat kenn mënu ko xawrat xalaat kon na jar na ba ñëricc ndax suñ borom boo demee ci suutar xadr mi ngi naan inna anzalnaahu fi laylatil xadri wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayru min alfi shahri tanazzalu almalaikatu warruuhu fiha bisni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'il fajri kon guddi googu ci la suñ borom di wàccee li nga xam ne mooy malaaka yi ci la ñu ñëwee laylatul xadr boobu malaaka yëpp dañuy wàcc di ñëw ànd ak jibril te tanazzalu malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa bisni rabbihim dañuy ñëw ci ndigal suñu borom ba fajar nag waaye nag indal yiw woo xam ne ak barke nga xam ne guddi moo moo gën junni weer waaye ci guddi gi laytu xadar ci la alquran wàcce إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحد من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة الخضر أي الشرف العظيم شي قدك ليلة الخضر لا القرآن واتيو بنيون جوغي تي لوح المحفوظ نيو تي أسماء الدنيا سي دي واتينا كم نيكو سن بروم بغي كون لولو بير لا مو خامني لو متا فونك لو متا خام لا ndax la ci nek ci ay yiwu te ak li ci nekk ci ay barke malaaka yi bu ñu ñëw ànd ak seen borom tam wàccaloo leen loola mbokk yi ku ci farlu rek man nga cee am lépp loo bëgg àdduna ak alaxira moo tax muy weer woo xam ne daal bu bari ngëneel la bu bari barke la mat naa fonk baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na man xaama laylatul qadar imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zanbi ku taxaw laylatul qadar te bi mi def ba mu nekk ak aji gëm tey sakku lu baax suñ borom dana ko jéggal la nga xam ne moom moo ko jiitu ci ay bakkar ñu bëgg na kon nit ki bari ci taxaw bari ci jax ndax taxaw gi ngay taxaw ak julli yi ak tudd yàlla ak ñaan ak jàng alxuraan ak yu baax yi nga xam ne moom lañ xam yépp loolu day képp ko def da nga xam ne suñ la nangul te yooyu rek lañ bëgg ci laytu xadar mooy julli tudd yàlla ñaan jàng alxuraan sarxe dem ci jataay baax yi loolu day mooy yiw yi nga xam ne li ci nekk mënoo ko am ci geneen guddi guddi gi kon nag jëf ci moom moo gën jëf ci waneen weer jëf ci guddi googu moo gën jëf ci geneen guddi kon nag loolu aw yiw la woo xam ne yaadu sala salaam mooñu ñu ko baaxe kon nag nañ ko fonk te téye ko kon nag mbokk yi e, weer waa ngi noonu laytu xadar mi ngi noonu e, yonent bi sallallahu alayhi soññee na ci xeemeloo ci xeet wi ñu wax ne li nga xam ne moo di laytu xadar moo gën alfu weer yooyu nag bu fekkee dang ciy jaamu yàlla day wuuteeg weeru koor wii ndax suñ borom dana nangu mboolem xëy ndax yëpp farata la waaye nag boo dee def jaamu yàlla taxaw yi ak koor yi yoo xam ne ci weeru koor yi day wuuteeg yee nga xam ne mooy yeneen weer yi ndax bo ci taxawé farata fay wuté nga taxaw ci wéri yi ci farata ndax wa man ada faridata fihi kana ka man ada sab'ina farida fi ma siwahu genn farata go ci taxawal diko julli de melne ne ñaar fukki farata mom nga taxawal kon benn bu nek rek ba wéru wi bo taxawé benn farata dañ lay koy multiplier ba juróom-ñaar fukk kon xam genn lolu bari na waaye muy weer woo xam ne weeru muñ la muñ ci bakkaar yi muñ ci tooñ yi waaye muñ yu baree baree bari waaye weer la woo xam ne it weeru fay fay la fay ga nag moo di àjjana waaye weer la woo xam ne it dañ ci dolli li xam ne mooy wërsëg yi ci jullit yi waaye weer la woo xam ne dañ ci goreel jàmm ci sawara waaye weer la boo xam ne dañ koy jéggal ay bakkaaram kon daal lépp aw yiw la moom weeru koor rawatina li nga xam ne nag moo di e, laytu xadar kon mbokk yi yàlla ñu yàlla defal dégg topp te suñ borom nanguñu te boole ñu ña nga xam ne huwa shahrul awaluhu rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu aytun min annaar yàlla ñu ko yàlla defal te yàlla mu doon suñu mujjantalu koor yalla ngi ko def at yu bare bare bare te sun borom nangul ñuko te fulul ñuko te laq fi laq ñuko fi yaq yegul ñoo ngi tubu ñepp di jéggalu ñepp di balaq ñepp di ñaan sunu borom mu fekk la wañ ko te ñu amu katan ak dal ak wër ba man ko joxe waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.